bilaay yaaram bismilaay ma doore way wii ci barkeem yaaram bismilaay ma doore way wii ci barkeem yaaram ki ñagal tànnee fi aar leen fegal leen man jeex na leer gi yaaram ku ko weet dina laaj saalum góor gi yoro mbay yaaram ñetti fan la fa cër ya bañ far mu làqoo sëriñ saaliw dootul am kuy niroog moom Serigne Saliou dootul am kuy niroog moom. yaaram Serigne Saliou dootul am kuy niroog moom. sant yàlla bi mu fàttee kër gi te delloo ko xanaa ko. boo xam ne bokkul ko lii rek lay def. Cheikh Abdoulaye dina dem maanaam kese ba. sama guddi ak sama bëccëg yëpp maa ko def ci Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Moustapha Fall ni ko Maam Fatou soxlaa ko kenn di sant sëñ Bassirou Abdou Khadre nga xam ne moom la sëñ Fall sëñ Tuubaa boole ko sëñ Fall sant sëñ Fall mel na ni bernde yi bëri na xeeti bernde yi nekk yi defar nañ ko fii nan yenn saa yi ngeen ci mën a jox mu mel ni mel ne gis nañ fi lu mat euh, six xeeti plat yoo xam ne ndax ko doon ko defar moom fii lañ dëkk. di yaay moo defar musu yi ñeneen ñi ñu doo ngay kër yooyu bàyyam yi seen soxna yi togg ko bi ci des doo ngay seen bés yi togg ne daal ak la nga tam ci xeetu sol yi am na déguisement yu bëri lu ñaar téeméeri nit yoo xam ne ñoo bokk col ñaar téeméeri nit boo ci gis ma sol orange rek ak ñaar téeméeri nit bàyyam la yaakaar ku leen yeewee ñu dem ku leen téye ñu gis ne liñ gis ni ci añ bi liñ commande moo gën a doy waar jógee ko barke sëñ Touba dañu sant soxna Fatou sant sëñ bi nga xam ne mooy borom kër te lu mu ci def yàlla ak sëñ Fall ak sëñ Abdou Karim maam ko liggéey maam ko ay la xam la yàlla ak ñoom fa nekk ci liggéey